leneen li ma bëggoon yokk mooy. contradiction bi nekk ci Pastef. ah gis nga ci contradiction yow li liñ fi jot a wax moo bëri. ban contradiction nga si gis. sonk kenn du ko laal sonk kenn ñëmoo ko def nii ñii ñoo dugal Sonko fa mu nekk may sonk fit nag sonk jàpp ne moom il est intouchable ñu koy buux rek jógewaat foofu ñëw ci sonk mooy suñu plan A B C D ba Z lan lañ gis fan yi ñu indiwaat Basirou Diomaye def ci ay ay effigie yoo xamante ne Bass mooy sonk beneen contradiction ba ñu ñëw Bass mi nekk seen candidat ñi ñuy parrainé déposé lu ko caution bu njëkk de sonk lañ dem yóbbul caution bu njëkk koo xam ne parrainé wul amul fiche nga dem yóbbul ko euh, euh, caution. te nga ne Bass mooy Sonko te te te mooy Sonko ki nga xamante ne moom la seen militant ne kenn ci yéen yóbbulu ko son euh, caution.